rek doon waat Bassirou Diomaye di xamle ne. def naa 15 ans ni sama mag ji président Ousmane Sonko. amul kenn ku lay wax biir Sénégal mos naa jël dërëmam ci loo xamante ne amul. gannaaw fukki at ak juróom yi nga xam ne def na ko ci impôt et domaine Bassirou fay Faye daal dinay xam le ne féelee ak ay fan rek day def déclaration de patrimoine muy sàkku itam candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba def liñ mel. dinaa wax sénégalais sama alal nu mu toll muy sama déclaration de patrimoine ko ñeme na def. ñëpp mën na def may invité candidat yoo xam ne nekkuñu woon lenn lu dul ay fonctionnaire occupé wuñu lenn lu dul ay fonction publique wala ay public ku mel ne Amadou Ba na déclaré patrimoine am ni ma ko nar a defee man ndaw candidat mi nga xam ne atam toll na ci ñeenti fukki at ak ñeent di euh, promettre baykat yu nekk sa Sédhiou neleen leen rek dina fexe ba gën leen dooleel ci seeni wàllu ay activité rawatina jox leen ay jumtuwaay yoo xam ne dina tax ba seeni ay activité gën a rentable su ko sénégalais fale ci dibeer di ñu dëpp dañoo war jële béykat yi ci béy dundee kese def leen ay entrepreneur ou ay agro entrepreneur ñu booloo ci ay coopérative de d'agriculteurs yoo xam ne dañuy béy di transformer di jaay kii di Ousmane Sonko moom gannaaw bi mu jëlee ab kàddu dafa daal di rek euh, félicité askan ko nañu mobiliser ngir dalal caravane am muy sàqu ci ñoom rek jour vote bi ñoom ñëpp ñu génn daal dem voté ji Bassirou Diomaye Faye fii liñ fi bëgg fii Sédhiou mooy nu mu tuuti tuuti 65 pour cent yoon bi gudd na ba xam ngeen 100 pour cent dafa xamul méngoog démocratie dañ leen bàyyi tuuti kon nañ ko def dañu seeni jox ko président Bassirou Diomaye Faye ma garanti leen ne nag à partir boobu incha allah ce sera le début du changement véritable. muy joxte ne am na ñuy jóg ngir song caravane am Sonko daal nay itam ministre de l' muy fàttali sax ci atum 2019 caravane am moom Ousmane Sonko jotoon na rencontré ak caravane bu candidat Macky Sall ca Ziguinchor waaye dara xewul woon.